Euh, Madame la ministre dëgg la waruñu féewale Sénégal waruñu indi boddikonte diggante ay citoyens sénégalais et suñu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk en situation de handicap ndaxte ay gaana lañu wala ndaxte dañoo amoon gaana ay citoyens sénégalais à part entière lañu ñu war a nekk et donc lépp loo xam ne day gàkkal seen der ndaxte dañoo amoon jàngoro war nañ ko fi jëlee waaye dama bëgg rek ñu bàyyi xel euh, benn mbir moo di ne loi bi fi amoon muy loi numéro 76 03 bu 25 mars atum 1976 ñetti titre la tiitre premier mu ngi tudd du traitement des lépreux bacillifères am ñeenti article titre 2 du reclassement social des lépreux et mutilés muy benn article titre 3 disposition commune et finale muy cinq articles mais boo xoolee waxtaanu commission bi ak waxtaanu fii lépp mu ngi jëm ci village de reclassement des lépreux or comme ni ma la ko fàttalee ñetti titre la deuxième bi rek moo ci wax ci village de reclassement premier bi mu ngi ci du traitement des lépreux bacillaires troisième bi leneen lay wax ma xaw a am tiitange ci ne ok d'accord naa pour que ñu bañ a stigmatiser suñu mbokk yi nga xam ne dañoo amoon gaana wala dañoo am gaana mais damay ragal bu ñu abroger loi bi yeneen article ak yeneen titre yi nga xam ne jote wuñu dara ak village de reclassement yi loolu lan lañ koy def loolu mooy sama tiitange pour rek gën a ñoŋal état bi ni muy toppatoowee suñu citoyen sénégalais yi amoon gaana wala am gaana ba tey ndax gratuité bi day woy mais xëy na am na mais damay poser question bi ndax admission forcée de tout malade réfractaire au traitement ou qui présente un danger de contamination ndax day woy ndax suñu mbokk yi amoon gaana wala am gaana ndax ñoom ñëpp am nañ carte d'égalité des chances ndaxte bu fekkee dañuy ne dañoo am cofeel ci citoyen sénégalais yi amoon Ghana wala am ngaana mais foog ñu wax ne itam ne sur un million de personnes handicapées ci Sénégal cent mille cartes d'égalité des chances la ñu defar cent mille cartes d'égalité des chance ndax lan xam naa ne neexul ci dégg ndaxte ñenn ci gouvernement bi dañuy sàcc xaalis bi ndaxte ñenn ci directeurs yi dañuy sàcc xaalis bi ndaxte président Macky Sall moo jiitu ci détournement alalu Sénégal moo tax pour un million de citoyens sénégalais cent mille cartes d'égalité des chances dong la ñu def donc am coofeel ci ngaana yi mooy saytu xaalis bi ni mu waree ngir ngaana yi xaalis bi war a jëm ci ñoom suñu mbokk yooyu mu dem ci ñoom madame la ministre interpellé leen naa la fii ay weer ñaari yoon waa centre de traitement des épidémies bu Ziguinchor CTE ci jamono mbas mi ba léegi seize travailleurs ñu ngi leen ameel ay cinq mois ay six mois ay trois mois d'arriéré de salaire depuis mbas mi ana xaalis bi mais xaalisu euh, ministère de la santé nañ ko dugal ci santé euh, Basile bu bu ñu waxee ngaana wax Basile de Hansen waaye nag foog ñu wax ci Basile ci Basile de Macky Sall bu ñu waxee ci Basile de Hansen foog ñu wax ci Basile de Macky Sall ndaxte Macky lim fi nekkee du dëgg du yoon Macky Sall mi nga xam ne gaaw na ne je suis la reine d'Angleterre je suis Ryan je suis Turquie ku dee bitim réew mu wax dix-neuf personnes de ci lu gën a néew ñetti fan mu ne pat du dëgg du yoon président Macky Sall nervi yu muy dugal ci réew mi du dëgg du yoon responsable APR ak Macky Sall ak doomam di jël ay nervi di jël ay milice di leen di jox ay fetal ak ay jaasi ñuy dal ci citoyens yi du dëgg du yoon li may wax nag mooy la résistance va continuer Macky Sall li muy bañ la résistance constitutionnelle va continuer ndaxte toog fii foog ne yaa moom Sénégal ku la neex mooy nekk candidat ku la neexul du nekk candidat du fi am Sonko dina nekk candidat Macky doo nekk candidat